sayyidina wa xabibina muhammadin ibni abdillah sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah dafa mel na li ñu jàngoon démb ci ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu lu mel na ni bés bu ne loolu di gën a confirmé ci chartab bu ñu gënee xóotal suñu relation ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu gënee approfondir suñu relation ak jàngale yonent sallallahu alayhi wa sallam maanaam noo gën a xamee jàngalem rek gën a xam ak làmbam alayhi salaatu wassalaam mu mel na le saxaaba yi doon wax ni yonentu jàngal nañu li war a xew ba bu waa aljanna di duggoo aljanna ba bu waa safara di dugg safara na moo demee yépp jàngal nañu ko ku ko fàtte fàtte nga ku ko fàttewul fàtte fàttewula picc daan na naaw sax ñu xam lu ko tax a jóg ndax yonentu jàngale na ko mana bàyyiwul dara buntu bi ñu nekk nag muy bunt toxaara nim ko jàngalee matale gi ëpp na yi mu jàngale yëpp matelega ga ëpp na ñu bëgg a jàng ak li ñu tuddee al fitra معنى fitara mooy cellite cellite gi ñëpp judduwaale ndax noonu la leen yàlla bindee dafa am yu takkook moom yu ko sàmm moo xam yu biirla la moo xam yu biti yonentu sallallahu alayhi wa dafay wax ni yàlla dafa bind ñëpp ci cellte mu ne wayjur yi nag ñooy yàqal yàlla doom yi ne bu ñu collaboré woon ak moom kenn du jóge ci cellte googu fa kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaani aw yunassiraani aw yu majjisaani cellate góog nag yi koy sàmm la ñu bëgg a ànd ak yéen déglu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu jàngal ñu ko mooy yemu tuddee xisaalul fitra waaw xisaalul fitra waaw te yooyu ñëcca ñëcca ëpp cër tax yàlla jox leen aw na shibba mooy yonent yi moo tax Euh, sunan min sunanil mursalin sunan min sunanil mursalin ni ñoo labalee biir ba fitra du tilim ci biir noonu la ñuy laabale biti ba fitra du tilim ci biti waaw dañoo wax ne xel mu sell xel mu sell ci jëmm ju sell lay lay ci jëmm ju sell lay sax ba ca njëkk nag ci yi ñoo tudd mooy bi wax ne su bañul woon lu sonnal nit yi dana ko def farata jamono yu ñoo jàpp dana ko def farata jamono yu ñu julli lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki inda kulli sola ci beneen xadis mu ne inda kulli wudu bu njëkk bi mi ngi ci Buxaari Muslim bi ci des mi ngi ci Buxaari ca kitaabu sow mooy socc socc yonentu nee na assiwaaku matharatun lil fami mardaatun li rabb hadis jàng ci ahmad ak moom soccu setalaa koonu gémmiñ la joxe waa koonu ngërmande borom bi la wala sax mu def ko matahara ala wazni mafaala mooy setu gémmiñ ci boppam soccu la ngërëmu yàlla ci boppam soccu la setal loolu wax na it ci beneen xadiis ni fukk fukk ci fitara la bokk mu tudd ca soccu mu tudd ca soccu soccu nag sopp nañ ko wala sunal nañ ko ci barab yu faccantiko barab yiñ ko gëna soxla benn bu borom yeewoo ci guddi wala ci bëccëg bu yeewoo ci nelaw ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam kaana ida qaama min alleyli yachuusu faahu bissiwaaki bu xeewaan guddi ci nelaw la mu njëkk def mooy ragg gémmiñam ak soccu tey bu ñu gisee ku yeewu jël pâte dentifrice am commencé broche ñu ne tubaab la te fekk yonentu sal ay sallam moo ko jàngale bu ñu jisee ku lekk ba noppi jël pâte dentifrice am di broche ñu ne tubaab la te fekk yonentu sal ay sallam moo ko jàngale xadis ji ñu tudd léegi mi ngi ci Buxaari ca buntu wudu ndax nelaw dafa tax xeetu gémmiñ soppeeku ndax ab xurul maida bi yéeg yi yéeg mooy mooy soppi xeetu gémmiñ waaw saa yu nit lekkee ba noppi wala mu jànkuwanteeg dara lu soppi xeetu gémmiñam sopp nañu mu socc jamono bu ñoo bëgg a jàng alquran nañu soccu teeyal gémmiñ gi ngir kàddu yàlla gi ñu nar jublu subhanahu wa taala naka noonu fukki yi ñu leen tuddal danañ tudd ñaari xadis benn bi juróom la tudd benn bi tudd fukk yonentu wax na ni xamsun min al fitrati juróom ci fitra la bokk mu tudd listihdaat tudd alxitaan tudd qassu sharibi tudd natful ibti tudd taqlimul awaawir xadis jilee mi ngi ci buxaari mi ngi ci muslim ñëw na ci buxaari ak muslim yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ahfu shawaariba wa afu liha sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi mu njëkk a tudd muy listihdaad mu ne juróom yi bokk na ci fitra bu njëkk bi mooy wat naq wat naq ñu koy tuddee istihdaat ndax xadit lañ daan jëfandikoo booba lu mel ni paaka walla yu mel noonu ci euh, jumtuwaay yi ñoo watoo dafa dañ ko daan defaree weñ gu ñuul moo tax ñu tuddee ko l'istihdaat waaye bu dee crème la wala loo mën a watee karaw wi nëq mooy karaw yi wër pey e, rafetal ko setal ko jikko la ci jikko fitra ñaareel bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne mooy jongo mooy der googu di nekk ci boppu awra góor ah bokk na ci xikma yi nekk ci jong mooy bu fekkee dindi luñ góor loolu su tuuree ndox ba pare walla bu tilim ñëwee ci awram dafay des dafay des su ko su ko dindee nag dafay tax foofu dootul gardeeti sobe seetal lislaam rek seetal lislaam rek bu dee ci Eh, jigéen nag nee ñu dafa wàññi bànneexam waaye kenn mënu ko cosaanal nag ndax hadis yu ko tudd yépp mën nañ leen jamoo moo tax eh, ku ko tudd mën nga ko tudd wante doo ko wutal cosaan gu gu ñu mën a sukkandiku ñetteel bi mu ne qasu sharibi wa ixfaauhu wa ifaau lixyati waaw Eh, dagg dagg naanu mooy li ñu tuddee moustache kenn du ko bàyyi ak lii wër gémmiñ yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa digle ñu dindi ko parce que dafa tax dafa tax eh, eh, foofu rafet te dafay taxit lekk yi du des foofu wala karaw yi du dugg ci sa biir gémmiñ bu dee sikkim nag nga bàyyi ko mooy sunna nga bàyyi ko mooy sunna waaye loo ci mën a bàyyi rek def nga sunna loo ca mën a bàyyi rek def nga sunna waaw waaw loo ca mën a bàyyi rek def nga sunna gudd na gàtt na loo ca mën a bàyyi rek def nga sunna donte waxu sikkim wax ju mën a gudd la ndax am na ñu ne sax li taxoon yonentu sallallahu alayhi wasallam digale ko mooy wuutee wuute ak ak yéeféeri te yéeféeri ñu ngi koy def ñu ne illa bu dàqoo ah dafay dàqu bu lañ ko illaalee dàqoo al illatu tantafi bi intifaai l maalul wante sunniyatu bi moom du dàqu nag wax dëgg yàlla ku ko def ku ko deful yëpp sunniyatu gi du dàqu mukk bi ci des yonent bi tudd ko muy taqlimul azafir muy lelli ay we am na soxna suma laaj fan yële ndax ku lelliwul ay weyam ku bàyyi ay weyam ndax sangu farataam baax na ma ne ko baax na kay su fekkee defu ca emaay walla yu tax eh, du mën a àgg ca eh, ndox ma du mën a àgg ca ca ca ca ca waaye bu fekkee mën nañ ko dagg moo gën parce que sunna yonentu yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa waaye léeg-léeg nga gis ko bàyyi ay wéyam ba dangay foog ne ndokment la ndokment mooy rab yooyu ci àll bi wéy yu gudd yooyu ñuy am yooyu doxul doxul doxul te loolu bokkul ak fitara nabawiyya mukk yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa digle ñu seetal wéy yi waaw lelli ko eh, juróomeel bi mooy natful ibt natful ibti mooy xuuf walla euh, naka lañ koy waxee buddi kawari pokotaan mooy dëñal ko rek ndax bu fa karaw yi nekkee daa tax muy xeeñ surtout bu boo boo ñaqee yooyu le boo ko mënee nag buddi baax na boo ko mënee wat baax na bu dee am na crème épilatoire yu dul lorin nga jëfandikoo ko dara newu ci waaw boo defee nag euh, euh, juróom yi xadis la yonentu sallallahu alayhi wasallam tudd ci beneen xadis juróom yi ak yeneen juróom muy fukk xadis yaa ngi ci muslim mu ne yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na ashrun min alfitrat maladun naasi fi diinin wa dunya badulun duna manin bi nawali shujaaun fi ixtiyaadin wa ixtinaamin ila al islaami